toujours affaire bi loolu la ñu instant xam lu ñu bëgg lu renverser tendance bi wax ji wax ji mooy ils sont mal en point ñëpp bàyyi nañ leen ñëpp jéppi nañ leen opinion internationale jéppi na leen sëriñ si jéppi nañ leen église bi jéppi na leen yaayi yi jéppi nañ leen ñëpp ñu bañ toon jéppi nañ leen ñu xam que ni instant bi nii fi ñu toll tendance bi yëpp mooy nangam sangam ñuy xool ay mbir yu renverser la situation ñoom ñëpp dañuy def une bande organisée di fen parce que pour ñoom yéen ñun ak suñu yaay yooyu pour ñoom ñun ay débile lan ñoom war nañoo mën a toog jël benn affaire jox ko direction bi ñu ko bëgg a jox ma jël exemple li xew tey ah di massawu may mun a nduur fay dëgg yàlla man ku moom sax yéenewu ma ko maanaam safaan ak yu mel nii ku dul moom sax ko mais li xew ma koy jiital ci su ki ñu jiite waaw mais ki ñu jiite mais yu mel nii bu amee par respect na condamné mais na yem fi mu war a yem bu mu jox influence ñi war a def enquête bu mu leen jox influence lan moo tax moom mu teel a jël position kan moo ñu wax que ni li xew tey ça ça un rapport avec la liberté de la presse qui nous dit que ce n'est pas ce n'est qu'une simple simple agression qu'est-ce qui nous léegi ku xam si ni moo jiite bu joxee euh, affaire bi direction wala mu jox affaire bi influence mais loolu lu muy niru loolu lay niru man pour man ñi ñi nga xam si ni jug na man gis naa ñëpp ñi ngi défilé ku ne di wax léegi booy booy booy nga xam si ni dee nekk ay sénégalais comme ñun nekk suñuy doom nekk suñuy jarbaat ñoom ñëpp seen yoon nekku si il suffit mu am benn wax boo xam ne bu ko ñëpp amplifié xëy na dañ koy jéem a jox benn direction comme li ma wax ay layam layam yi la mais au final ñëpp xam nañ ce qu'il sous ce qu'il sous-entend ñëpp xam nañ ban direction lañ bëgg a wax les événements mais qu'est-ce qui nous dit li am man aw ma ci benn ab euh, euh, aw ma ci pied xaw ma nu mu demee mais qu'est-ce di nous dit que ce n'est pas qu'une agression quest moo ñu waxal que ce n'est pas qu'une li tax léegi ñu xam que ni am na lu xew euh, détenu politique yi ñu ngi annoncé ay plainte am na la moo tax léegi automatiquement ñu bëgg a jël mbir jox ko benn direction man loolu moo ma jaaxal te pourtant pour des gens yoo xam ni c'est des officiels ak ñoo xam ne dañuy diriger ay institution man pour man balaa ñuy mën a wax di jox affaire direction dañu war a respecter la police waaw léegi bu ñu woon nit ki ñoom ñëpp ñu wax ba pare président bi jaale ba noppi ku ne wax ca suba sa bi benn genre nit dof bu bu fa rombon bu def agression bu boobaa kan suñ ne woon génne enquête bi ñu ne noo benn benn agresseur moo ci yem wala benn waay boo xam si da ko da ko da ko da ko ko ameeloon nangam wala koo xam si da ko doon fiire wala koo xam si ni da ko da ko am léegi bu bu ay enquête ñëwoon génnee loolu ñu ne ki def loolu kii la léegi ñu jiitu woon di wax liberté de presse liberté de presse ñooñu kon bu boobaa bi ñu am gàcce te ñu di wax liberté de presse bi ñuy nangu euh, liberté d'expression Sénégal yi ñooñu am nañu journalistes yëpp taxaw bi ñuy tëj euh, internet mbili mbac ñu tëj internet ñoo journalistes yooyu ànd nañu bi bi ñuy bi ñuy tere sénégalais ñu wax li nekk seen xol droit à l'information li xew seen dëkk bi ñu leen koy tere nga xam ni ku ko wane ñu tëj la ku ko wane ñu nangu sa télé bi ñu koy def liberté d'expression ak droit à l'information ñu leen koy xañ Sénégal yi ànd journalistes naafiq yi ak yenn politiciens naafiq yi ñi ñi ñi sàkkatoo droit liberté d'expression di sàkkatoo journaliste la ñuy protégé mais barke bu chaque jour seen ay seen ñooñ ñooy dóor journalistes yi ñoom ñooy toroxal journaliste ñooy tiital journaliste yi pour que ñu bañ a wane les choses ñoom ñooy brutaliser journaliste yi image à l'appui ñoom ñooy tëj ay maison de presse yu jàmbur ñooñu ñoo wëlbatiku jamono am na fu mu toll bëgg nañ jox affaire bi benn connotation wala bëgg ko jox benn direction ñoom ñëpp dañuy ànd def tir regroupé tir regroupé ci benn direction pour que nit ñëpp xool direction boobu noonu pour que jeexital yi nit ñi am yenn idées yu bizarre ci eh, est-ce que nekkul ne gars ñoom ñoo lëkkaloo seen biir dem defi ñii naan amoon naa ay menaces fi dëkk bi ñu dañ may menacé man dañ may menacé de mort keneen ak keneen man dañ may saaga nday yéen seen yaay dafa gën sama yaay yaayu patriote yi dañoo ak ak détenu politique yi seen yaay yeeg ak ak yéen yéen ñenn journaliste dañoo gën suñu yaay ñun dañuy menacé de mort tous les jours ñu saaga ñu dañ lan moo tax ngeen dem de victimiser wu xam la moo fi xew fii amul lu xew loo xam si ni action euh, réaction boo xam ni amul action bu ko entraîné am na ci journaliste yoo xam dañuy dem si tele ba di fen di fen di fen di fenal gor yi di piétiner la souffrance nit ñi di souffrir ñu jël paaka bi di ko gën a yokk seen souffrance ay boy di dee ay ay ay nit tëdd ci kaso bi gratuitement ay xale yu ndaw ay étudiants ay professeur d'école ay ay ay ay sët ay ay ay doomu sëriñu daara ñooñu ñëpp ñu ñu leen di tooñ di leen souffrir loo nga gis yenn journaliste si noppi wala boog di wutal looy loolu loolu ñu koy wutal lay waa loolu yow pour yow journaliste bi ñooñu yow askan bi après ban yëg-yëg la ci am askan bi bu ci am yëg-yëgu mer yëg-yëgu déception yëg-yëgu xam ne yow tu es un un pourri tu es vendu léegi moom lenn moo koy dese mooy mu dal sa kaw bu dalee sa kaw nga ne gis nga kenn dootu fi wax sa xalaat suñu liggéey la ñu def ñuy saaga ndey non non non da war a xam ndax est-ce que simple liggéey kese nga doon def wala dafa am benn jeu boo doon jouer il faut nga leeral nit ñi nga bañ sa affaire naafeq yi est-ce que sa liggéey kese nga doon def wala dafa am benn jeu boo doon joué muy profité a benn camp bu lay corrompre ah di tooñ ay ay innocent ak ay victime nga ñëw di di di piétiner victime yooyu noonu ba victime yooyu noonu aussi am ñoom tamit benn bët bu ñu la commencé xoole di mer wala ñu lay saaga wala ñu lay wala ñu lay euh, am benn en tout cas benn genre pression bu ñu lay teg ci réseaux sociaux yi ban journaliste ay ñam kii jong yi nekk 2STV tout ça des journalistes dañuy def ay émission politique dañuy def ay sorties dañuy est-ce que gis ngeen benn boy bu mës a taxaw fekk un journaliste intègre un journaliste qui ne prend que position que pour dire la vérité wul faire son travail est-ce que mës ngeen gis benn boy mu acharné ci journaliste bu mel noonu les jong qui sont au 2STV wala keneen ku nekk si beneen ku nekk si télé koo xamante si ni ñëpp xam nañ que ni kii c'est un journaliste intègre booy xëy suba rek saaga ko est buñ critiquer ki booy yi faral parfois booy yi dañuy xam que ni critique bu objectif la ñu nangu ko mais c'est différent que nga nekk mercenaire toog di fenal nit ñi may mun a nduur fay maa ngi koy ñaanal yàlla mu may ko tan yaa ngi dégg wax bi mais am na vidéo buy tourné yàggul dara lan la wax euh, lan na wax nit ñi kaay leen ñu génn rey xale yi ñu kaay leen ñu génn violé jigéen ñi kan moo ko fi doon wax loolu kan moo ko fi wax nañ ma mës a wax benn parti wala benn groupe wala benn mouvement bu mës a taxaw ne kaay leen ñu rey nit ñi kaay la ñu rey xale yi fi violé jigéen ñi pourtant ci kanamu teelam la taxaw wax ko yàggul dara barki Demba Ndiaye fii la taxaw ñuy wax si affaire affaire affaire détenu politique mu ne da ngeen nar doon rey xale yi ñi fi doon génn di rey nit ñi di taar ñi ñu fi doon rey c'est-à-dire que ni moom mi ngi affirmer à travers pas une question pas une question mi ngi affirmer que ni ñu nekkoon ci kaso yi ñoo doon rey nit ñi. léegi bu amee booy yu mer taxaw ne kii kii vendu kii li muy wax ni tegu ko fenn léegi ñu ne gis nga kenn du wax kenn du wax sa pensée. journaliste yi dëkk bi pensé unité may wax Pape Djibril Fall kooku nga xam ni bëgguma ko sax tudd fi parce que mooy loolu mu naan comme ak Barthélémy Dias ku ne naan ay pensée unique dictature de la pensée unique mais yéen yéenay naa fekk ban pensée unique ban pensée unique est-ce que yéen yooyu ni ni eh, journaliste bu ñuy def loolu toog ci kaw gor yi di leen fenal ay boo yu nekk kaso ñu tëj leen plus de un an yow nga toog sa télé di leen waxal ne ñoom ñoo rey ay nit ay boo yoo xam ne dañ leen ramas ci mbedd boo yi bu ñu génnee amal la haine wala ñu génne saaga la wala nga génn ñu nga wax ñoom ñu génn démentir la ba noppi waxee ko ci façon façon bu soxor yow yaa leen tooñ wala yow ñoom ñoo la tooñ wala yow yaa leen tooñ ñoom ñu riposté ah et tous ces politicards euh, euh, récupérateurs nga xam si ni à la recherche du buzz wala de la sympathie ñoom nga dem ne ñu ngiy fen ku ne di génn ne da jël parole di di indigné wu une indignation sélective jamono bi nga xam ne boo yaa ngi dee di dee par milliers ci géej gi géej gi barki dembu ñaata ñoo dee Saint-Louis waxuñu si ah benn agression am ñu def ko une affaire d'état bëgg ko def xanaa léegi bii par ter euh, attentat terroriste ngeen ko bëgg a parce que même réaction bi ngeen defoon jamono bi ngeen waxee attentat defoon même réaction boobu ngeen def yéen ñëpp da ngeen jël affaire bi jox ko benn direction pour bëgg a lëndëmal sénégalais yi sénégalais ñoo yem boo nekkee njiit dangaa war a yilif ñëpp da war a taxaw yëlif ñëpp buñ dooree kii nga jooy buñ dooree kële nga jooy mais buñ dooree kii ma matadu buñ dooree kële ma ma ñëw jooyal ko léegi nga bëgg sénégalais bi sénégalais bi moom mu am ci ban yëg-yëg ban yëg-yëg la ci war a am sénégalais boobu noonu wala sénégalais yi ñun ay mbaam lañu ñëpp ñu xëpp di ko gis gis nañ que ni bu dee du ngeen ci wax mais sénégalais ñu ngi koy gis wala yéen xamul leen di sénégalais ñu ngi gis loolu gis nañ que ni bu ñuy rey booy yi bu torture am lu mënta am sénégalais gis nañ que ni du ngeen leen massawu vous en parlez pas da leen di mépriser seen souffrance intéressé wu leen en même temps sénégalais yi dañu gis que ne bu ñu gisee ku bokk ci yéen wala koo xam si ni ci seen ci ci seen mission la nekk bu amee dara rek yéen da ngeen di génn indigné wu. yéen pour yéen journaliste yenn journalistes yi ak yenn politiciens yi ak yenn njiitare pour yéen yéen yéen moom sénégalais yi ba nga xam si ni jamono bi ñu bi ngeen bëgg ñu jooy ci la ñuy jooy jamono bi ngeen bëgg ñu mer ci la ñuy mer même bi ñuy rey suñuy doom bëggu leen woon ñu jooy ko am ñu toog seen i télé may mun a may mun a nduur téléem la toog. di wax wax joo xamante si nii kan moo mës a génn ne nañ génn violé xale yi ñaata yoon la frustré ay xolu Sénégal ñu toog di seetaan mu am ay question yoo xam si ni daf koy jox direction mu ay question yoo xam ni question yi daf koy jox benn genre day mën ne ku la bëgg wax loolu yi barki dem bi mu bu mu dalalee Fadilou Keita moo si mujj toujours da lay jéem a poussé ci loo xamante si nii luy frustré ay millions de Sénégalais lay doon alors que mënoon na ñëw rek poser des question parfois mu def la ay relance bàyyi la nga wax sa xalaat mais moom day mën na ku yor xalaatam di la pousser pour nga ñëw ci xalaatam mu fekk ko si su ji affaire bi jeexee mu def la ah, toi je t'aime bien yow moom je t'aime bien wala Bassirou Diomaye ñëw mën ko Bassirou toi je t'aime bien tu l'aimes bien mais tu es en train de détruire son parti tu es en train son son leader ces millions de personnes qui qui yi nga xam ni ñooñu la ñuy àndal yow yaa ngi yaa ngi frustré jeunes yooyu noonu ay millions de jeunes yoo xam ne ñii ñooy seen ay leader nga toog sa télé di leen frustré après pour ñun ñu nekk ay complexe da ngay wëlbati naan na mais Fadilou toi moom je t'aime bien wala ngeen ni non Bassirou yow moom je t'aime bien après bu nee Ousmane loolu mooy wane que ni c'est de l'hypocrisie c'est juste pour vous acheter une bonne conscience pour vous faire une bonne conscience ngeen jël benn kii na ko je t'aime bien mais bu dara desul bu dara desul Ousmane Sonko ngeen tiire ko tiir regroupé yéen ñëpp te bu amee benn réaction des gens yi nga xam ne ñii lañ gëm ngeen ni leen dañoo violent mais mani saaga moo gën ay ay fen parce que ay fen day fekk ay fee ñu wëlbati ko mu créer souffrance bu dul jeex te loolu noonu fen yooyu tax na ay nit tëdd ci kaso tax na ay ay waajur di misère di misère ba dee tax na ay jabar toog ba di di di stressé ba avorté lim jur fen yooyu li mu jur ci ay dégâts moo gën a grave fukk junni yoon ay booy yu saaga kenn du toléré booy toog di saaga saaga sax baaxul donte da ngaa mer donte dañ laa tooñ amul kenn ku koy toléré mais yéen mu ngeen bëgg. yéen lan ngeen bëgg sama di gis nga ñii ni ñuy doxalee sénégalais yi yeewu nañ ci te war nañ cee sax gën a yeewu parce que ñoom noonu la ñuy def dañoo bëgg fi ñu bëgg nit ñi xool fa dafa mel ni comme euh, comme léegi daal comme li xew France maanaam léegi traite négrière sax yow bul ci wax donte moo gën a ñun ñëpp nañ wax ci affaire la ñun ñëpp ci affaire la ñu war a jooy ku ci jooyul baaxoo ku ci jooyul doo gor léegi ñëpp jooy ci loolu mais traite bu ci kenn bu ci kenn bind ci livre d'histoire dafa mel ne li xew foofu moo commencé xew Sénégal day am ay moor yi moor ay xale yu ndaw ay tëj ay torture boo yi war koo wax nit ñi war koo relayer affaire bi jël forme bi war a jël journaliste yëpp def silence rajo moo wax ay Pape Birame Touré ku ne ñëw di am lu muy expliquer ñu jël affaire bi ba ko jox direction te defagul enquête ay télé yoo xamante si nii bi ñu àttee Ousmane Sonko ñoom ñoo defar seen reportage pour bëgg a forcer nit ñi lan mooy corruption de la jeunesse pour bëgg a préparer nit ñi ci nit ñi nangu loolu noonu ñu da leen jaraloon ñu def benn benn benn reportage ci lan mooy corruption de la jeunesse pour rien que pour accompagner la décision de justice yéen ngeen yaakaar ni boo yooyu nga xam ni ki ñuy condamné mooy seen leader ban yëg-yëg lañ war a am ci yéen est-ce que vous pensez que cette colère est gratuite ça vient de nulle part est-ce qu'il vous arrive de vous remettre en question nga ne ñun encaissé gi ñu encaissé di piétiner ngëm-ngëmu booy yi di ne seen espoir loolu moo tax booy yi guuxal ñu yéen da ngeen toog un jour rek ne booy noo guuxal yenn politiciens yi su ngeen nekkul woon ay traître ànd ak ay nit ñu fal leen ba ngeen nekk ay maire ngeen wëlbatiku wor leen trahir leen jour bi ñu leen di euh, jour bi ñu leen di àtte ngeen préparé mi ngi daaw jour bi ñu leen di àtte jour bi ñu leen di ngeen préparé seen vidéo génnee ko yaa ngi dégg nan la violence ñun du ñu jaar ci ay cadavre pour dem palais. ci nit koo xamante si nii bi mu jekkoo ba askan bi na ko nañ dem palais dañ leen man du ma demee palais ci anam bi ngeen pervertir l'histoire jour bi ñu koy àtte ngeen bàyyi ba 17 heures ngeen génnee seen vidéo programmé lépp ak li ngeen ci war a wax. waaw mais kooku ay nitam léegi ban bët lañ la war a xoolee ay nitam buñ meree ngeen ni non gis nga dictature de la pensée unique booy yi kenn du wax sa xalaat il faut ñu dem sur le pourquoi le pourquoi fii ñu ngi koy jéem a esquiver duñ mën a xam la vérité la vérité mooy su booy yi meree li tax ñu mer man su ma booy yi defalee tir regroupé ñëpp ñu saaga ma ban taxawaay laa am est-ce que waruma leen est-ce que waruma seen leader est-ce que ki xamante ni moo ma jàppale dégg ci lu ne jël ci ay risque ba man ma àgg ci station bi ma bëggoon wëlbatiku dat dat koy vomir dessus dat koy pisser dessus est-ce que nekkul nag ñooñu noonu loolu lañ ma meree mais ñooñu bu ñu la meree loolu seen réaction mooy fu ñu la fekk dañ lay ciipatu wala ñu saaga la wala ñu joxoñ la baaraam ne la ab lâche nga booy wax ñoom ñëpp ñu commencé mais dama ne nit ñi nañ nangu di wax que ni loo gis lu ne am na lu ko waral man je parle des journalistes je ne parle pas de l' agression de Maymouna Ndeye parce que xaw ma lu ko waral wóoruma ndax agresseur la wóoruma ndax benn nit bu frustré la dem def dem def ko lu mu ci mën a doon dañ koy condamné parce que kooku budul dara jigéen la man je suis pas d' accord ñëpp mus munoo gis mais li ñu bëgg a gëmloo mooy dafa am ay nit yu ci d' accord yu ci kontaan ay nit yu li alors que même le sénégalais bi nga xamante ni dafa dafa dénoncer l' indignation sélective automatiquement dañ koy diaboliser dañ naan gis nga dañ cee kontaan. gis nga condamné wuñ ko alors que sa sénégalais là bu sañoon dara du dal may Maimouna Ndour mais lim la bëgg a fàttali mooy lan moo tax bu faites une indignation sélective loolu la la bëgg a fàttali loolu moo tax mu jël ay moor di ko publier waat loolu moo tax mu jël ay moor di ko publier waat may fàttali sama mbokk yi quelle que soit votre colère ayez raison garder parce que am na nu ngeen di réagir ñoom ci loolu la ñu utiliser diaboliser leen sénégalais yi foog ni da ngeen violent wala da ngeen bañ seen yeneen morom sénégal alors que melu leen noonu bu leen nangu aussi seen disque seen seen seen colère bu leen nangu mu jël loo leen posture boo xam ne nit ñi dañ leen si jéppi parce que boo wanee ko ne damay fayantoo wala nga wane ko ne aw mu benn dañuy utiliser loolu de gis ngeen ñii ñii de bis bu ñu jëlee nguur gi sénégalais yi lañ bañ gis nga ñii non bu leen leen may loolu li nga mën a def mooy bul complexé kenn soo waree dénoncer nanga nga ndey dénoncer nga bëgg a mais aussi nanga am compassion ci lu mënta xew nanga nga wane que ne d'accord ci violence parce que ñun violence taxuñoo jug defar réew mi moo ñu tax a jug donc looy looy mënta wax xamal ni phrase booy génnee mën nañ ko utiliser contre la cause dañ daf ñuy desservi baaxul donc yow tamit loo mer mer mer yu mel ni bu amee na nga wane massaw na nga wane compassion balaa ngay jël benn position wanal massaw wane compassion mais bu la kenn def euh, euh, complexe ba doo dénoncer cette indignation sélective bi ñuy def ak journalistes yi bëgg a dajaloo créé loo xamante si ni enquête amagul xamaguñ lu ko waral xamuñu agression ab sàcc la xamuñu nit koo xamante si ni c'est c'est un problème très personnel xamuñu lan mooy les causes les journalistes jug rek bëgg ko jox direction ànd ak suñu benn président boo xam ne moom jox na ko direction ba pare te waxaguñ ñu des enquêtes yéen bu leen nangoo nekk ay complexé dénoncé leen ko bu dénoncé jotee mais restez humain na nit ñi xam que ni ay nit yu baax ngeen na nit